asalaamaaleykum <laughs> waa Sénégal maa ngi leen di ziar ziar ziar ziar ziar bu baax a baax a baax a baax eh, di leen sargal di leen tatagal di wax rek maa ngi nuyu ñëpp nag mais di nuyu waa Sénégal di nuyu eh, aussi eh, ñi nga xamante ni ñëpp jaar nañ fi joxe information yu baax ak yoo xamante ne mun tuddee yu baaxul pour le moment parce que dafay baax yenn saay aussi ñuy wax li nga xamante ne moom mooy dëgg gi eh, te yàlla rek tax man euh, maa ngi fii sama sama dëkk sama dëkk Paolo la tudd donc ñu xool xale yi nga xamante ne ñoo ngi nekk di foy yore seen ay ay vélo euh, Paolo nag euh, mi ngi nekk ci milon la bokk Euh, soriwul trop dëkk yi nga xamante ne mooy Codogno euh, wala Casal Busterlengo wala Lodi parce que Paolo ak Lodi dañu frontière frontière la parce que lu tax euh, frontière la am na ñoo xamante ne seen kayit bu ñu génnee fii Paolo dem dëkk bu ñuy wax Merlino mu ngi na ngay seen ginnaaw barrière bële Merlino ci Lodi la bokk donc étage bële ngeen di seen na ci lodi la bokk donc je pense que euh, li tax ñu def direct bi mooy nit ñi dañu xaw a tiit Sénégal te comme ñun yàlla def na ne ay ay voix autorisées lañ duñu wax ci lu neexul euh, suñu borom taluñu ko boo gisee ñu bugg waxtaan ak yéen tey mooy wax ni fi ñu dugg ñun tey dëkk bi euh, dëkk bu am tranquillité la naam li nga xamante ne moo fi am ñëpp tiit ko ñëpp ragal ko muy feebar bi euh, nit ñi ñoo ngi jël seen précaution euh, mais dafa am ñaari affaire yu ma bëgg a taxaw ci waxtaane ko parce que aussi man professionnel de la santé la donc je pense que mu ngi mel ni suma xarit sama collègue euh, l'infirmière Adja Mbodj moom aussi maa ngi koy sant bu baax ci information bi mu joxe parce que mi ngi ma fekk Sénégal te loolu dafa am solo ci doomu aadama yi di ko xam maa ngi ñëw benn supermarché bu tudd Lidl donc dans ce supermarché y a les gens qui qui qui qui à leurs besoins di dox seen soxla donc Paolo nekkul loo xamante ne euh, sori na ko doo ñëw mais terewul nit ñi ñoo ngi biir Paolo. di dox seen soxla bon man maa ngi nii hmm? donc euh, supermarché baa ngi nii e la gente fa donc man euh, li ma bëgg a gis mooy wax rek sama wax nu mu nu mu gën a baaxee pardon sama wax nu mu gën a baaxee nu ma ko mënee dégg nga tubaab bi mi ngi wax ni kenn mënul reprendre ak cellulaire mais man je peux le faire quand je parce que du tere nit ñi duñu duñu war a wax li ñu war a wax rek la ñuy wax donc euh, ma bëgg rek ngeen xam ni li taxoon ma dugg ci marché bi du dara pour wax nit ñi amul ragal amul peur amul euh, li nga xamante ne moom mooy euh, daw nit ñi wala seen ku ñuul daw wala seen ku weex daw li mu am mooy prévention prévention nag bu problème amee ñëpp ñoo koy def mooy moytu ak fexe noo xamante ne euh, nit ñi duñu tiit parce que li xew tiital nit yi la tiital nit ñi weesuwul nga ne pandémie moo am Italie ay nit a ngi dee ay nit a ngi def lii fekk na lii bokkul épidémie la fii Italie ku ko xam liggéey ci corps sanitaire yi xam nga ni chaque chaque année am na loo xamante ne eh, genre feebar lay doon yenn saa yi bu génn am na sax ñu koy qualifier banal influence mën na nekk parce que loolu médecins yi ñoo ko wax te ñun waxu médecin duñ ko weddi mais quand même du pandémie eh, nit ñi aussi ni nga xamante ne noonu la ñuy joxe information bi baax na baaxul nañuy laaj juste à la source pour xam vraiment lan moo xew li xew mooy feebar la comme feebar yépp parce que fi ñu ko wax ci Chine tey nekk na la nga xamante ne biñ ko fay wax Eva biñ ko fay wax euh, nekkoon na luñ naan rey na ay nit yu bëri en Italie on peut dire ci ñi nga xamante ne moo ñoom lañ ne ñoo fi faatu ñëpp ay quatre-vingt-dix ans lañ am ak lu topp Euh, te loolu yàgg na fi man je me rappelle en 2014 Adja Mbodj je le prends en témoin euh, je prends en témoin aussi euh, peut-être l'actuel vice-consul ñoom ñëpp xamoon nañ ni pandémie bu amee ñu ci bari dañuy dañuy épidémie bu amee màgget yi dañuy am problème parce que ñoom ñooy gën a nekk couche bi gën a faible ci dëkk bi pour mun a maanaam euh, aar seen bopp c'est nag alarme bi dafa bëri ndax ñëpp xam nañ ni ñun ñi dëkk Italie xam nañ ni yenn saa yi Italie si fait divers la ñuy dund euh, ñoom seen problème mooy lu xew dañ koy gaaw divulguer et tout et puis nit ñu mën a jël seen précaution lañ dëgg la nag parce que fi ñu génn fi ñu wax Codogno ak Casale Busterlengo ak euh, dëkk yi ko environnant yi ko yi ko jege ñoo ngi nekk en en quarantaine ça c'est vrai mais quarantaine est-ce que duñu jël quarantaine ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy li tax ñu def ko hmm? vous voyez les gens euh, ngi ni di dugg ci supermarché bi di dox seeni soxla donc quarantaine quarantaine mooy nga jël ay nit teg leen pour feebar bi ñuy waragal ni feebar bi nangam la bu dee ngas bu dee xuréet bu dee njàmbataan feebar bi bañ a tas ci adduna bi feebar bi bañ a tas ci àdduna bi feebar bañ tas ci dëkk bi feebar bañ tas ci village yi nga xamante ne ñoo ko ñoo ñoo dendax moom donc loolu aussi quarantaine boobu am na ñun am nañ fa ay xarit ay dëkkandoo ay ñoo xamante ni yàgg nañu ànd ak ñoom bokk ak ñoom lépp man mii di wax ak yéen sama avocat mi ngi dëkk ko ñoo dëkk boobu ñuy wax du may mi ngi nii di ma suivre Katis Kala c'est sûr que mi ngi may suivre xooluma ko mais mi ngi may suivre ah donc xam naa ni sama sama genn wàll dafay des dëkk boobu ñuy wax ko dooñoo parce que man euh, Lodi laa amee suma këyit mooy zone bi ñuy wax te dara boolewu ma fa lu dul dëkk Merlino déposé Lodi donc jàpp naa ni euh, tey euh, il c'est il ma waxuma sax député bi waxuma dara mais dafa may nekk de droit ma war a mën a wax pour nit ñi dalal seen xel doomu aadama yi dalal seen xel sénégalais yi dalal seen xel xam ni amul benn sénégalais boo xamante ne tey bokk na ci lii ñuy wax donc man maa ngi nii maak suma suma doom ñoo ànd génn dem si supermarché bi def suñuy achat génnaat donc nit ñaa ngi dox comme li ma leen wax rek bu fekkonte ni tiitaange dëggantaan dëggantaan bëri na fii doo fi gis picc parce que fii ak lodi ñu ak lodi amul frontière biñ koy dagg si découpage bi ko dagg waa lodi dañ ko doon xëccoo waa Milan di waa waa waa ville Milan euh, euh, di ko xëccoo ndaxte amul frontière yàlla def découpage boole ko ci Milan donc te dëkk yi nga xamante ne ñoo ko jege muy Zelo Bom ko fii sama ginnaaw frontière ko Zelo Bom ko fii ah Trucassano Merlino yooyu yëpp ci Lodi lañ bokk te amul amul frontière mënoon naa dawal sama oto ban leen fii ci Lodi la bokk donc supermarché bi gën a mag à part yii mu ngi nekk ci ci ci biir lodi donc toujours dañ fay dem donc gisuma ci euh, benn tiitaange bi euh, muy Jana Demarchi donc jàpp naa ni euh, li ma gisoon moo doon ñu informer juste et ngeen baal ma xëy na live bi dafa dagg ci instant bi li ma gisoon mooy ñu informer juste et vrai informer juste et c'est bon nit ñi dañ leen di woo rek téléphone di leen wax yenn saa yi ñu joxe information surtout Sénégal te ñun dañu am ay mbokk am ay yaay am ay tante am ay papa man de mbër ki bu may voyager di ñëw fii rek suñu waa kër nekkoon nañ dans tous leurs états waroo dem waroo lii mais man je leur ai dit man du ma bàyyi su may doom suma suma caat maa ngi nii taxawee nii ma di ko gis nii muy ree ah, loolu lii mooy dalal sama xel hmm, parce que man dama frontière oo ak fi nga xamante ne foofu la ñuy wax euh, euh, lodi donc li ma frontière ak lodi moo waral man aussi il faut ma daw ñëw xool lu fi xew ba pare sama sama nit yi fii lañ nekk ñi ma voteel ñi ma yor def député fii lañ nekk mënu ma daw dëkk boo xamante ne je lui dois tout parce que man je dois tout euh, à l'Italie et et aux Sénégalaises de l'Italie donc man du ma leen daw damay ñëw xam information bi réellement ñu def différence rek euh, entre nag feebar bi ni épidémie la épidémie nag am na fépp am na Sénégal choléra daf fay am am na Sénégal euh, euh, déggoon ngeen temps yee passé ñuy wax ni que ni fii dafa am euh, li nga xamante ne moom mooy feebar buy wàllaate comme Ebola ak yu mel noonu mais taxul sincèrement nit ñi am ci tiitaange parce que fa mu commencé rek fa la yam pour ma wax leen daal li nga xamante ne moom mooy li gudd li gàtt mooy nañu fagaru lii tasul ci réew mi sénégalais yi amuñu ko mais dëkk ba mu am nag sénégalais yi ñu def en quarantaine mesure de prévention la te boo ko dee xool man avant mooy ñëw Italie nit ñi dañu dañu tëju woon supermercato yi supermarché yi amul kenn kuy dugg amul kenn kuy génn ñu tëj fépp ndax tiitaange ragal parce que alarme Sénégal Italie ci alarme la ñuy vivre parce que ñoom wax dëgg yàlla ay nit yu kii ci santé lañ ku yu wóor ci santé yu féex ci santé mais à la fin da ngay comprendre que ni dañ ko doon dañ doon bañ rek feebar bi law tey mun nañu wax ni à cent pour cent bu fekkente ni nu mu doon reyee en euh, comment dirais-je en en Chine. Euh, bu doon loolu dëggantaan dëggantaan fa parce que fi mu nekk nii médecins yi dañ ci séddoo ñii naan li ñuy jaawalee ak euh, ak lii c'est c'est une une banale influence ñii naan coronavirus la mais aussi am na ay mesures de prévention yoo xamante ne nit ñi war nañ ko mën jël mooy di xam ki ngay nuyu di raxas sa loxo ba mu set eh, di di di di saa nuyoo nit raxas sa loxo éviter sax nuyoo moo tane ah di aussi euh, nuñ koy waxee waxeeti di aussi euh, moytu lieu yi nga xamante ne mooy lie for fréquentation nga xamante ne nit ñi dañ fay bëri ah, euh, di sàmm xale yi yooyu ay prévention la ñuy teg rek pour éviter sincèrement que maladie bi propagé wu ci biir dëkk bi ay mesures de sécurité la rek donc ma wax ni man dama ñëw rek pour expliquer sincèrement ce qui se trouve être hein, euh, une pandémie et que ce n'est qu'une épidémie te épidémie fépp lay am mun na am loo xamante ne jàmm lay jur mun na am loo xamante ne du ci am comme lu ma sama mag bu jigéen bi doon wax rek temps yëpp naan ma affaire bi mbas la mbas donc xam nga loolu loolu mbas mag ñi ñoo ko daan wax naan mbas mooy jur euh, euh, feebar ya nga xamante ne kenn mënu leen contrôler donc euh, ma ma ma ma bu baax ñi nga xam ne ñoo fi jaar avec euh, les informations euh, di sant ñi nga xamante ne aussi ñoo dindi désinformation bi wax ni que ni nit ñi ay sénégalais yi ñu def quarantaine vingt deux mille ça c'est pas vrai déjà ñoo man xam naa ko bu baax dëkk la boo xamante ne dëkk bu nit ñi féex lañ donc moi je pense que y en aura pas plus de Euh, peut-être suñuy wax y en aura pas plus de de de de de cinquante ou de ou cent sénégalais mënul nekk à Codogno parce que Codogno nekkul dëkk boo xamante ne dëkkul liggéey la nag mais warul mun nekk dëkk boo xamante ne dafay mel ni par exemple Paolo dafay mel ni par exemple euh, San Donato dafay mel ni par exemple euh, Monza dafay mel ni par exemple non c'est mu munu toll noonu donc il faut pas que ñu alarmer nit ñi parce que sénégalais yi ñoo ngi woote fu ñu toll ah di laaj lan moo xew. ñun dañu sonn dañu tiit suñu doom yi suñu cousin yi kii naan la waaw sama rakk bi rakkaatam mu nga Italie non man je je voudrais tout simplement que nit ñi dégg si suma gémmiñ ñi nañ dalal seen xel ñun en aucun en aucun cas nous la chose de près te autorité italiens yi nu mën a waxal yépp danañ wax ak ñoom pour sincèrement laaj leen vous voyez les voitures sortent du supermarché tranquillement di dox seen soxla après dañuy defaat yeneen live ci yeneen supermarché parce que même supermarché yi fan yëpp tijji wuñu woon ñaari fan ñetti fan lañ tëj parce que économie bi dëkk bi tamit économie bi dafay yàqu économie bi dafay wàcc euh, liggéeykat yi yenn azienda yi mooy yenn usines yi am na ci yoo xam ne tëjuñu ah man bu ma doon ñëw Sénégal bu ma doon jóge Sénégal j'ai dit à mes enfants bu leen liggéey bu leen nangam mais quand je suis venue euh, voir la réalité en face je suis que man sax ci erreur yi nit ñi doon naxaate laa bokk parce que euh, instinct instinct maternel bi moo ma jàpp boo tax ma gën a daw gën a ñëw gën a xool aussi sama njaboot yi non seulement mais sama sama sama administré yi donc daal euh, je pense que lu gënoon lu gënoon rëy ci wax bi wax nañ ko mooy lii du pandémie épidémie la mun na nekk coronavirus bi nga xamante ne moom la ñuy wax muy genre virus bu lay dugg def la genre sibiru def la genre fatt sa bakkan def la genre fatt say say say say say via respiratoire yow mooy say via respiratoire say voie respiratoire euh, ba pare bloqué la euh, def la la nga xamante ni moom mooy yóbbu la ci leneen mais comme cas yi ñu ci gis yu bëri si suba euh, même euh, journal bi gën a joxe information bu bëri mooy Sky TV 24 ci suba bu ma ko gisee dafay wax ni euh, pratiquement ñi ñu ñi ñu ñi ñu yëpp ñu ci bëri dañuy wër man je pense que nañu nañu wàññi tuuti désinformation bi te dalal xelu nit ñi c'est vrai que nag feebar bi moo ngi fi am na fi mais nañ ci ànd ak xel mu dal sinon mag yi du ñu ñemee génn ci biti parce que ku nekk xam na italien dafa ragal ragal ragal ragal feebar euh, te màgget yi rek ñooy dem ci marché yi màgget yi ñooy dem si tali yi màgget yi ñooy dawal seen vélo yi di di doxantu donc nañu moytu désinformation euh, man daal loolu laa am lu may wax di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant ñi fi jaax euh, ñëpp joxe information ku mel ne soxna Adja Mbodj dem moom aussi elle a elle a donné des des des informations Euh, je l'ai téléphone tout à l'heure on a beau discuter en en professionnel de la santé waxtaan ci lu bëri bëri bëri bëri bëri man ak moom par rapport à, aux informations euh, à la bonne et à la mauvaise parce que peut-être qu'il y en a pas euh, de mauvaises informations mais quand même euh, am na la nga xamante ni ñun rek ñoo ko mun a fajal suñu bopp mooy wax doomu aadama yi dëgg dëgg bu wër wax ni feebar bi am na mais terewul <clears throat> nit ñi wax seen soxla wala terewul nit ñi dox seen soxla euh, fii gisoo fi doo fi gis sax ku takk masque dans ce supermarché marché doo fi gis si takk ku takk masque man maay maa ngay doxee Paolo ba fii su ma oto xaw ma fu ma ko fu ma ko wàcc donc moi pense que euh, amul doo fi seen sax si mbedd bi kenn ku takk masque wala ku muuru wala ku noonu su ko nit defee rek dafa def ni man xaw a ragal tuuti sedd def sa def sa xeetu muurukaay mais les gens euh, tranquillement vaguent à leurs occupations sans problème nday dove la macchina non non so neanche dove ancora eh ah dritto ok alors euh, problème bi mooy loolu j'avais j'avais prévu de faire un petit live de 10 à 15 minutes pour dem si supermarché yi ku ku xam nag euh, comme nu ma ko waxee léegi Adja Mbodj Dème ku xam euh, Paolo xam ni e a una frontiera stretta stretta am na frontière bu bu jege jege jege ak li nga xamante ne moom mooy euh, vraiment nu ñu koy waxeeti Milano euh, Lodi donc tranquille suñu mbokk yu nekk Sénégal dañu xam ne euh, am na am nañ ay mbokk yu nekk Casalpusterlengo am ay nekk mbokk yu nekk Codogno am ay mbokk yu nekk fu ñu wax nii feebar bi fa la nekk ñoo nga fa dañ leen quarantaine te ñu ñu leen ñu koy naqarlu mais quarantaine mesure de sécurité la xëy na ñoom feebar bi mun na leen bañ a dal ah Voilà ma voiture. <laughs> ok donc quarantaine mesure bi war na leen mën a mën a bañ a bañ a bañ a affaire na leen bañ a dal donc maa ngi sant ñëpp nag di wax ni su su neexee yàlla si kanam danañu fexe euh, ba defaat yeneen euh, yeneen live demaat si beneen dëkk bu jegee Pawulo xool ba xam est-ce que vraiment euh, li nga xamante ne moom la ñuy wax nekk parce que boo xoolee tey nday voglio girare live euh, per vedere fondo là allora ah, hmm? deve y la grande rue bon man euh, fii dama ñëwoon jël aussi information ci police locale bi léegi léegi pour xam exactement ak euh, déposer waale suma yenn euh, bagage yi Eva sai cosa facciamo noi poi andiamo là in fondo dove la chiave della macchina no nel, nella tasca del, della borsa ok give ah no no no qui qui allora prendiamo la macchina al volo andiamo fino 0 persico eh? ah Eva vabbè tieni la giacca waaw dama dama dama wax rek <laughs> léegi damay damay damay def benn continuation def tuuti ak sama sama oto ma dox xool ngeen ngeen gis nday teen ngeen gis directement dëkk bi metti di di di fronte no tu poi dopo quando giriamo tu fai euh, ma no su di me che io sto guidando ok léegi euh, dama bugg a def euh, benn live autour doxantu tuuti xool exactly ndax nit ñi naka la ñu doxee dem ba benn frontière bu nekk euh, si dëkk ba xool ba xam exactement nit ñi lay séntu bon parce que man en général ah foofu lay yàlla dafa def foofu noonu loolu yi foofu laay jëndee essence chaque jour parce que am na sama marché bu fa nekk donc foofu moom lay laay jënde essence donc car yi ñoo ñoo ñoo ngi nii bon fii am na marché t'as vu pour wax la gis nga marché hebdomadaire bi am fii si koñ bi moo nekk na la ngeen di seen si si Pawulo comme nu ma leen waxee woon nag Pawulo moom moom mooy euh, sincèrement euh, fi nga xamante ne moom moo frontière oo ak euh, directement vers vers vers Lodi pour ñu xam ni rek man bugguma sénégalais yi ci live bi nag lu ko waral nekkul nekkul euh, sincèrement pour ma pour Italie mais pour Sénégal pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Sénégal euh, nekk ay nit ya nga xamante ne waaye les ça circule normal quoi de normal temps euh, normal time lii mooy am apa wulloo ah les machines ak oto yi nga xamante ne dañuy dox seen soxla hmm. donc moi je pense que pour rek ñu xam ne amul lenn su ma taxawoon damay mun gis nga nit ñi ñoo ngi nii di dox seen soxla normal temps lii mooy am pour Sénégal rek ñu moytu tiitaange bu ñu tiit bon école waral xam nga donc les postes ibam doom yi nga xamante ne ñoo ngi dox si mbedd mi sans masque les tubaab vous pouvez les voir vous vous ngeen leen gis donc fa mu fa feebar bi am dëkk ba xam nga lu ma dawagum sax matul deux minutes pour wax la li frontière fi ma dëkk ak ak ak ak ak dëkk boobu noonu Pawulo nu mu ko waxee Lodi frontière tra Pawulo ak Lodi maa ngi nii ok ok non è che perché dañu war a def pour nit ñi di ñu di ñu suivre wala eh, di ñu loolu c'est dañu bëgg nit ñi ñuy déglu wala ñi ñuy seetaan génn si dume ñi ñi ñuy seetaan walla nit ñi ñuy déglu ñu jël information bi ba pare tas ko donc fii mooy Zelo Buon Persico gis ngeen les quattro strade fii mooy frontière fi ma dëkk man nday facco indietro poi dopo fi vedi quoi frontière fi ma dëkk ak fi nga xamante ne fala ñu wax ne que ni euh, feebar bi ci zone boobu la nekk donc moi je pense que amul amul amul tiit amul ragal sénégalais jàmm la ko yàlla di may parce que sénégalais nag dañu am jom defuñu waxuñu yàlla ak Serigne Touba maam El Hadj Malick maam Boun Kouta Ndiassane Baye Niass ah, ci am benn benn problème waaw mais ñoo ngi ñaan aussi nit ñi toog euh, seen kër na wal di rekkee toog seen kër parce que dañuy toog ferme xëy na zone bi nga xamante ne moom lañ mettre en quarantaine na mooy moom lañ mettre quarantaine muy zone boobu dina xaw metti si ñoom parce que li ragal mooy feebar bi wër dëkk bi ah moom moom moo tax ñu def leen quarantaine mais euh, pour wax la maa ngi ni dugg Zolobon Bersico Zolobon Bersico moom ci Lodi la bokk donc Paulo jeex na à gauche Zolobon Bersico fii ma taxaw la commencé Zolobon Bersico nga def Zolobon Bersico parce que pour wax rek ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy euh, ñoo ñu doon seetaan sànq ñoo doon déglu sànq avant euh, di laaj naka la naka la fi ñu feebar bi fi ñu ko wax naka la frontière ak Milan lii la matul euh, peut-être lu bari ah matul lu bari laa soo ñëwee fii ni euh, tablo baa ngi nii moo lay wax Lodi nga jëm Lodi mi ngi nii Lodi t'as vu Lodi mi ngi nii Lodi Melegnano Mulazzano Cervignano dëkk yooyu yëpp dañuy wax ni am na ci ñett wala ñaari dëkk yoo xamante ne ci ñi ñu def quarantaine la la ñu bokk donc moi je pense que amul dara lu gën nga informer juste et vrai instant bi nu nous dirigeons vers euh, dëkk bi nga xamante ne moom mooy Lodi par exemple te pourtant nit ñi euh, tranquillement ça circule xam nga yaa ngi sa biir oto ta tu cours aucun risque amoo amoo amoo problème mais nañu moytu rek eh, désinformation bu ñu bu ñu bu gis nga oto yaa ngi nii di liggéey si liggéey jóge jógee jóge loodi di ñëw jóge loodi di ñëw mi ngi nii ñu jógee loodi di ñëw biir Milan mais la ñaano loodi xam nga li ma la wax zelo bon persico comprendre nga donc lii du dara on parle de de trois quatre kilomètres yoo xamante ne sorewul dëkk bi ñëpp donc nanu nanu nanu rafetal yëf yi au Sénégal dalal xel yi bañu ñu ku informer c'est vrai bëgg nañ ñu informer Moulassano Cervignano Melegnano donc les les plus grands hôpitaux man sax damaa tiit mënatuma dem <laughs> fenn parce que dañ doon wax naan waaw affaire bi jàpp na fii Sénégalais yi vingt mille vingt cinq mille vingt trois mille y' a aucun Sénégalais y' a aucun vingt deux mille y' a vingt deux mille aucun les gens sont sont sont là que fu ñu war a fi ñu nekk. Euh, muy euh, euh, Lodi ak zone variée. moom bi ko jege ñooñu. du tere ñu dox seen soxla. mais avec des mesures de prévention. lii du épidémie du du du pandémie. la pandémie mooy mooy li nga xamante ne. moo mooy kenn du kenn du ñëpp sax te ciy bokk mais fii les normales personnes man sa sama waa kër dañ ma doon reetaan bu ma ñëwee je leur ai dit man il ma ñëw xool parce que ñii ñoo ma fal ñii ñoom ci ñoom ku nekk sa base nga am ak sa sa sa say say man aussi am naa samay nit fii ñi fi nekk ñëpp man maay seen député ku bëgg ak ku bañ ñoo xam ni voté nekkuñu woon ci élection yi ak ñu si nekkoon ñëpp man maay seen député donc man du ma bàyyi sama sama ay nit ñu nekk si ay tiitaange man may toog Sénégal di tëdd si ay matelas yu nooy parce que tëdduma woon tey maa ngi raté yu bëri maa ngi raté un séminaire du ministère des affaires étrangères au Sénégal c'est important parce que le président euh, de la commission dafa dafa convoqué maa ngi raté euh, un séminaire sur le pétrole c'est important maa ngi raté ay commission yoo xamante ne c'était programme que mënu ma ko woon raté pour bien pouvoir défendre ah Euh, sama sama sama samay administré ak aussi les sénégalais qui pensent que mun naa représenter dara donc euh, là on circule vraiment sur sur sur l'audit tout ce qu'on fi ñuy jaar ni yëpp l'audit la euh, ci l'audit la ko tout zelo bon persico ba ba pavia ñu ngi nii zelo ci l'audit la ko les gens ne travaillent pas parfois parce que xam nga fii dafa bëri ay tool tool yaa ngi nii ngeen di gis donc su fekkente ne nit ñi dañu arrêté c'est par pure mesure de mais nekkul loo xamante ne boo nee oxo mu dal la wala yu mel noonu donc moo taxoon ma nañ ci wax je voudrais bien su dul woon damay conduire parce que là c'est ma fille su fekkonte ne du man damay dawal dama doon wax euh, dama doon woo Adja Mbodj woo Baye Diouf woo waale si Abdou Ndaw Euh, pour ñoom aussi ñu joxe li ñu am parce que am na yoo xamante ni tiital nit la il faut ñu wàññi yenn dugg euh, dugg Facebook yi wala dugg si si si sociaux bi social network wax loo xamante ne du am parce que loolu moom mooy gën a tiital euh, suñu maam yi suñu yaay yi suñu tante yi nekk Sénégal lu ma wax nag mooy dëgg live bi c'est pour dalal xel waa Sénégal dalal seen xel wax leen ne dëkk bi ñu nekk dëkku tubaab la dëkk bii ñu nekk du dëkk ba nga xamante ne <laughs> ku nekk lu la neex ngay def dëkk bi li ngay def da koy teg si yoon dëkk bi gouverner wuñ ko si ma tey lu ma neex def ma poñe nit ñi ma nangam nangam non non ñun bi ñuy dugg fii démb comme normal personne comme une personne normale bu nu egsee li naate dañ ñu tegal ay mesures yoo xamante ne dangay taxaw fële ñu xool la sa température ndax bi ngay ñëw ci dëkk bi indi woo fi feebar indi woo fi nangam ma je suis passé au test je suis passé au test comme tous les nit ñi fa jaar ñëpp xam nga je fais partie des premiers à débarquer je suis si je ne suis pas la troisième personne à sortir ah mais dañ maa dañ da ngay ñëw taxaw ñu tegal la affaire bi appareil bi nga sori fële ñu won la ne la est-ce que xool ba xam ndax yow amuloo feebar bi réellement soo ko amul nag ñu ni ah waaw kay ah yow de amuloo ko mun ngaa génn su fekkee am nga benn siburu wala nangam boo indaalee ci réew mi ñu ne la ah kaa ñu def la quarantaine quarantaine mooy ñu sori la xool réellement yow euh, am nga am nga luy symptômes yi symptômes yi pour wone ni yow taa je sais pas taa quelque chose à bu ci sa ci sa sante boo xamante ni war na nit ñi tiit nit ñi tiituñu nous sommes en plein au cœur de l'audi nous sommes à Cervignano Dada xam nga praticamente c'è questa è il fii mooy dëkk bi l'audi bi ñuy wax l'audi pas l'audi pas l'audi kii le plus grand centre commercial de l'audi je me dirige vers plus grand centre commercial de l'audi El Gigante di Sangrato ku xam lodi dëggantaan la provincia di Lodi c'est quoi dafa di quartier le maire dégg donc moi je pense que man normal circulation laa fi gis et je tenais à vous dire que sama naar du yendu ca ker ga ma yendu ca naaj na ñuy doxante ndànk di waxante ndànk di wax sincèrement et réellement euh, ce qui se passe dans pays waaw yenn saa yi désinformation am yenn saa yi mu xaw metti yenn saa yi nit ñi tiit parce que feebar bi nii mu demee defe ko Chine ñu wone ay nit yu dee si àll bi ah eh, ay nit yu sonn et eh, eh, defe naa ni loolu moo tax sénégalais yi tiit waaw mais nag nañu xam ni nañu gën a dalal xel yi pour wax ni sénégalais yi déjà sobuñu rek sobuñu pour commencer sobuñu sob boobu lii aussi mënul wéy parce que économie dëkk bi day daanu donc je pense que tey ñaari fan yi tiitoon nañ xam naa ñaari fan yi boo jaaree fii comme lu ma sama doom bi wax boo rombee foofu day mel ne ay ay ay cimetière hmm? doo doo gis kenn bu tambaambalu mais tey <laughs> nit ñaa ngi dox nit ñaa ngi dox seen soxla moi je me dirige vers euh, toujours euh, euh, nu ñu koy waxee ci lodi Montonazo Lombardo ɓeɗo jente e jiira mi ngi ñiiji seen jardin yi di nax seen di defoo ak seen doom yi donc je pense que dalal xel yi rek moo tax aussi bitu vidéo bi du démentir kenn du xas kenn du tamit wax kenn loodi si amoa loodi du xas kenn mais wax rek que ni na nit ñi dalal xel yi que fii eh, jàmm rek moo fi am Euh, leneen gisuñu ko fi te tey si ngoon on va aller voir peut-être des sénégalais ay sénégalais euh, si seen kër yi ñu surtout ñu dëkk Lodi suñu euh, ko suñu ko suñu ko mënee danan danan dem dem si kër yi xool vraiment et réellement lan la sénégalais yi xalaat ci li nga xamante ne mooy pandémie bi mooy épidémie bi am excusez-moi mooy épidémie bi am mais liñ si xalaat déjà man sama gis-gis mooy ici à Lodi la circulation est est est nette et tranquille les gens à leurs besoins et à leurs préoccupations man loolu laa noté te loolu tamit loolu lay wax c'est que ba ñu ne amee na muy Codogno Codogno è in provincia di Lodi province la province banlieue proche la comme ni ko tubaab bi di waxee donc banlieue proche bi mu amee ci Lodi sincèrement moom ñoo ngi ko ñoo nga fa xëy na ñu téye leen def leen en quarantaine mais man ma ci defaale kooku suma doomu ndey suma xarit euh, yaayu avocat bu ñuul bi su ma seetaanee seetaanee dina xam boppam ak papa avocat ñuul bi parce que ñoom tey dëkk boobu lañu dëkk Caselle bu Sterling donc Casale di dëkk bu ma bëgg dëkk bu ma neex nga xamante ne chaque jour dama koy traversé di dem Codogno ñooñu aussi si seen si frontière bi lañu lañu lañu dëkk donc ñooñu il faut ñu def leen euh, quarantaine voire la maladie donc ñu xam ni rek loolu rek laa si am à Sangrato di Lodi muy centre Lodi soo xoolee nii sa ginnaaw fi la kestura yeeg a mooy police bi police immigration ak yooyu ah lodee ngi nii t'as vu cartel la Sangrato bii mooy supermarché gigante bi gën a mag ci Lodi t'as vu les voitures normal situation lii du fi am mi ngi nii man fii laay sax jëndee essence nag pour wax leen saa yi ma ñëwee Italie sama station essence a ngi nii donc fii bu doon coow li bëri na bëri bëri bëri oto yii doo leen fi gis te ñii ñii liggéey ci supermarché bi la donc c'est ça euh, ce qui s'est passé réellement ah man fii saa yi mu musaan ñëw nii laay def du am sax fu ma gaare et c'est ça encore moom mooy xewaat damay wër rek ba gis fu ma gaare pour mun a dugg ci supermarché bi donc kii mooy San San Sangrato gigante bu Sangrato donc eh, beh dai facciamo così prendiamo benzina e poi avant que je sais pas quoi c'est qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va se garer on va se garer comme euh, comme d'habitude notre solito garage ok Ndeye Fall io vado qua così quando esco esco waaw ok seen yàmb wàcceel na bon la euh, là on est euh, ñun dañooy dañuy wax rek te yàlla rek tax amuñu ci intérêt parce que du affaire journalisme chacun fait son travail comme il faut mais moi aussi je vais informer ñi nga xamante ne ñoo may suivre ñi nga xamante ne ñoom laa nekkal ci dëkk bi di leen liggéeyal donc man euh, la je me dirige vers l'eau di Sangrado le plus grand supermarché supermarché centre commercial centre commercial fii nekk Lodi Lodi man comme ni ma leen ko waxee walaa am nit ñaa ngi jënd di dem di ñëw tranquillement hmm? centre commercial waa ngi nii ok vous centre commercial est là gigante sangrado loolu donc je pense que su fekkente ne y a quelqu'un qui reproche quelque chose à l'autre journaliste yi nañu jàpp ni dara bokk métier bi moi aussi waaw yaa ngi ni di dox soxla ¿Tarde? Ok. Papi, come stai? Allora. Oh oh oh. Eva, prendiamo quel passaggio là. Che poi Gemma Iglesias. New York, sax Milan <laughs> nuyooguma leen Milan laa nuyoogul sax ñëw fii di def ay direct ak ay live donc Milan j'entends dire euh, euh, waa fédération donc là je suis en plein cœur de l'eau di caminando ak sama tranquillité hein hein hein hmm? 바로 가기 싶어서 supermarché ouvert un ouvert à Lodi donc man côté bee laa war marche merci beaucoup Astou Gaye c'est gentil donc pour ne pas déranger du ma may def ay son mais dam leen di wax rek ni que ni fii mooy centre bi gën a mag ci Lodi bunt yëpp ubbeeku nañ benn buntu tëjuwu fi nit ñaa ngi dox seen soxla di jënd seeni jënd hein yéen a leen di gis nii Mati Bambist Mbow maa ngi lay ziar donc je pense que daal l'essentiel a été dit et moi aussi je suis sur ça je voulais vraiment voir de mes propres yeux ce qui se passe gis nga pont ba la ngeen di seen pont moom mooy mener vers Codogno Pombale donc je pense que eggaguñ fa mais ñun moom rien ne nous arrête et rien ne nous ferme de près avec nos su ñu demee ba xool daañu xam sincèrement ce qui se passe on va essayer aussi d'appeler ñi nga xamante ni ñëpp ñoo nekk Casale ak intorno wax leen ce qui se passe exactement bon ngeen di seen mooy pont autoroute bi jëm Casale jëm aussi fi nga xamante ne moom mooy euh, Lodicentro Pavia Casal Busterlengo xam nga ménager comme comme maa ngi doog a ñëw sama oto bi xott bi xott moo ci nekk amul essence damay dem jënd essence <laughs> après reprendre yëf yi ci kanam nga pont bële fooy ngeen di seen oto bi jaar na moom ngay tourne rek jël autoroute bi génn dem dem Casalpusterlengo pa Piacenza pa via côté yooyu donc loolu rek moo taxoon ma ne tey naa def benn live je je pense que j'ai fait presque xaw ma une heure la xawma lan la mais daal en tout cas def na live bi pour dalal xel yi Hmm? dalal xel yi wax nit ñi ñu moytu sénégalais yi mbooloo yu bëri yi wax euh, ñu jël mesure de prévention yi bañ a nuyoo nuyoo bu bëri surtout nuyoo ak euh, ñoo xamante ne ils sont susceptibles avoir la maladie la maladie mooy par exemple euh, xëy na ñun tubaab moo gën a feebal ci ñun moom lañ ko mën a waxee ñu moytu leen moytu mbooloo yu bëree baree baree baree bari donc c'est ça quoi Ewa. ok ok alors loolu moo doon eh, sama sama sama live bi ma waroon def ak eh, sama administré mais aussi ak Sénégal wax leen ne leen informé nañ informé juste et feebar bi moo ngi fii si dëkk loolu xam nañ ko. parce que ñii dañ ci jubóowul médecin yu mag yi jubóow nañ ci ñii parce que am na ay professeur en médecine yuy génn wax ni euh, banal influence la am na ñoo xamante ni dañ ñi coronavirus la mais dans deux dans tous les deux cas euh, prévention bi mooy yam def tranquille euh, di raxas sa loxo ba mu set ak yenn gel de yi di nuyu ba pare boo nuyoo nga raxasu beneen bi mooy moytu mbooloo yu bari yi moytu mbooloo yu bari yi euh, bañ a bañ a dox dox yu bëri ñoo ngi doon waxee ak yéen fii ci Lodi Lodi mi ngi mi ngi nekk ci province de Milan Lodi ngeen di dégg nii ñu ne fa la feebar bi bëri mais comme ni ma ko waxee man bi ma egsee Lodi j'ai vu que supermarché bi fi gën a mag fees na dell ci biir personne ne peut plus euh, nit ñi ne peut plus nier que nit ñi ñoo ngi dox seen soxla parce que defuñu ko pour dara mais dañ ko def pour wax nit ñi nañu bàyyi des informations depuis euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy Sénégal suñu yaay yi suñu maam yi suñu papa yi dalal seen xel fii tuuti rek suñu dawalee Sangrato ak fii matul 5 kilomètres suñu dawalee Sangrato ak Kodooñu ñoom fàcciñ ko kilomètres yi suñu dawalee mun nañu dem ba ni la tableau Kodooñu moo ngi nii Pavia caserne bi Sterlingo suñu fa amee benn information dañ leen koy indilaat mais ce qui est sûr et certain mooy dëkk boobu liñ ñi Casale dafa nekk quarantaine dëgg la Casale nekk na quarantaine euh, parce que tout simplement ils évitent que la pandémie euh, que que que, que la chose devienne une pandémie li nga xamante ne moom moo xew muy feebar parce que fii dëkk bi dañu bëri ay mag ñun dañu bëri ay mag suñu dëkk dafa bëri ay mag donc mag yooyu ñoom la ñuy éviter ñu laal influence bi wala coronavirus bi donc il faudra que aussi ñu def séparation amul benn sénégalais bu am benn benn benn feebar bu gën a ndaw ci fii waxtaan nañu ñun dem si ngoon soo gisee ñu bari dañ ñu doon woo jëluñu leen téléphone c'est que il fallait ñu jot ay autorités italiennes pour waxtaan ak ñoom laaj leen réellement parce que ñun aussi euh, bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo formé li nga xam ni moom mooy euh, associazione ci Mondo association ci Mondo noo ne nekkul dara dul benn association boo xamante ne moo dajale woon monde entier bi fële ci dëkk bi ñuy wax Milan euh, man bokk naa ci quatre firma ñi nga xamante ne ñoo signa quatre signataires yi wala cinq donc euh, ñu il fallait ñu laaj ba xam exactement